di am mbégte ci njàmbu sow di am mbégte lool di la nuyu di nuyu commandant brigade Darou Marnane waa UGGR waa Croix-Rouge sapeur pompier waa service jeune Diop Eaux et Forêts ak Ndiaye ak monsieur maire ak conseil yëpp ma am mbégte lool ci jataay bi ndax dama fay ñëw teewal fi Serigne Moustapha. xalil Cheikh Mahmoud Amin Ba ak njaboot yëpp ndax euh, Serigne Abdou Aziz wax na ko ci biir waxtaanam sëñ Mbacke wax na ko sëñ Modou wax na ko njaboot bi genn njaboot la ñëpp njaboot bi sëñ Touba la dëkk bi itam benn dëkk la yàlla moo barkeel ndax ki ko sañcoon muy Mamadou Anta Sali bañoon gent moo waraloon sax muy nañ xëy na dañ ko yóbbu dàq la ndax waaye ak ñaanam dafa jiitu moo waral Cheikh Mamadou Lamine Bara bi mu waree sañ ku tedd bi yebal ko fii ci Mbàkke Kajoor ci ay mbokkam maam Amar Fall Mbàkke sëñ Abdou moo waral nekkoon fii itam moo waral pénc ma léegi kon Mbàkke gu mag gi kër sëñ Amar Fall kër maam Cheikh Awa Balla kër Cheikh Mamadou Lamine Bara lépp benn dëkk bépp ak njaboot njaboot njaboot sëriñ bi itam mën naa wax ni du bisu njabootu sëñ Mbàkke rek waaye njabootu yoonu murid wépp la bisu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi ci ndax lépp lu nit ñi def yoon ci yoonu murid moom nga koy defal moo ko yilif moo ko jiite kon bisam la moom bisu njabootu Seexul Xadiim la bis yoonu murit la bis lislaam yépp la ndax ku tedd ki bi mu nekkee fii ba bàyyi mu fay jóge di dem Mbàkke Kajoor dafa jëli si Ibrahima bi nga xam ne mooy waajur ñëw jox ko dëkk bi ngir bañ daara ji fay ba tey daara ji fayul ñu ngi tàkk mu bàyyi ko fi dem bi mu demee ci géej gi ba ñibbi si ñëw di ko siyaar si di ko seet si di ko sant si muy ñeenti fan ci weeru buñ koree ci weeru korite moo waral njaboot bi sàkku ñu seen bisu bopp sàkku bi sëñ Ibrahima waaye bis bi nga xam ne ku tedd gi daa ñëwoon duñ ko seet si moom la ñuy màggal kon bis na boo xam ne yoon wi yëpp jokk ko kon monsieur le ñuy leen di sant di leen gërëm ndax kilifa bu nekk suñu borom da ko jox ceeb te rafet na loolu am na solo suñu xol set na buy bi ngeen xamee cër bi nga déplacé wu yéen ak ñu ne ci arrondissement bi yëpp. ngeen ñëw di ko waajal si loolu lu am solo la loo xam ne ñëpp koy rafetlu ñëpp koy rafetlu ndax kilifa yi diine bi si rek dañu am te kilifa yi diine yi ñoo ñooy ñooy cës laayu Sénégal ndax ñooy royukaay ñooy ñaan yàlla jàmm ñooy yar nit ñi kon bis yi nga xam ne dañ koy fab ci fàttali bi ci jàngalewaat yéen wàllu àddina bi yàlla teg ko seen loxo ngeen yëg ko xam ko joxe cër boobu jërëjëf. monsieur le préfet maanaam cantu président de la république yi fàttewuñ ko la dala ci moom ba ci yow ñu ngi yëbbanti ak cant ci moom ci taxawaay yu rafet xanaa li fàttali rek monsieur le maire nga xam ne moo war a gën sëñ Mbacke Kébé bëgg nañ ngeen jàppale ñu ci. wax dëgg yàlla euh, yëpp ñu defar ba mu leer seen daal fépp dina leer incha allah fii làmp matal nekk daal wala mu nekk foofu nag wala ñu war faa def ñu ngi ñaan ngeen baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di sant waa presse di sant itam waa Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag bu ma ko waxee Mbàkke Kajoor yëpp rek comme ni ko sëñ Seex Coro waxee péncum sëñ Seex Awa Balla sëñ Baar sëñ Amat Fall ngi sant ñëpp yi sëriñ Modou Mbàkke ndax mi xam ne nii moo jiite euh, daayira waa Mbàkke bu mag yi ñu ngi koy sant bu baax gis nañu taxawaay yëpp ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu ci bis ba ak jàmm kenn bañ a màgg suñu borom ni ko kon ñu ngi woo woon fii tey ci Mbacke Kajoor pour ànd ak comité d'organisation bi nga xamante ne moo taxaw pour euh, waajal bés bi nga xamante ne moom la ku tedd gi sëñ Touba euh, gise woon ak sëriñ Mbacke Kajoor gannaaw ba mu tukkee tukkeem bu yàgg boobu da xamante ne mu ngi amoon si ñeenti fan après Korité bés boobu moom la ñuy waajal fii ci Mbàkke Kajoor euh, saa yu si tollee nag dinañ ñu saisir administration pour ñu waajal ci seen wàll ku nekk secteur ba nga yëngu pour ànd ak comité bi d'organisation bi ba bés bi ñëw si jàmm taalibe yi ñëw euh, def seen màggal si jàmm delluwaat ci jàmm moo tax tey ñu ànd fii ak euh, service yu bëri euh, service sécurité yi ànd nañ ak ñoom ànd nañ également ak waa santé ànd ak yeneen secteur yi nga xamante ne waa Sénélec euh, ñoom ñëpp seen liggéey dañ koy soxla ci màggal bi ñu àndeek ñoom it taataan nañ ñu soxla yi nga xam ne moom la comité d'organisation bi yittewoo ci bés bi secteur bu si nekk wax nañu ko si naka noonu service yi teew tontu nañu joxe ay engagement pour assurer sécurité wu bés bi parce que màggal moom euh, boo ko mënee def ci anam yu mucc ayib day laaj mu am sécurité bu doy naka noonu gendarmerie sapeur pompier ak même waa eaux et forêt wax nañ ne ku nekk ca la ngay liggéey di nga taxaw pour que la nga doon def daaw aw def ak daaw jéeg ren nga gën ko yokk gën taxaw taxawaay boo xamante ne euh, benn jafe-jafe du ci am lu jiitu màggal gi bésu màggal gi ba même ci euh, bés yu topp ci màggal gi wax nañ ne docteur Ndiaye mi jiitee euh, district bu Mbàkke Kajoor fii dina ci ànd ak waa Croix Rouge ànd ci ak waa service d'hygiène ànd ci ñëpp ñu koy jàppale indi ay ambulance doy mais également taxaw bu baax a baax bépp taalibe boo xam ne ñëw nga fii pour màggal si ci wàllu wér-gu-yaram naka noonu it wax nañu euh, côté courant courant ak ndox nga xamante ne ay euh, soxla yoo xamante ne mënut a ñàkk ci màggal courant il faut mu doy bañ a coupé te également bañ am benn gàllankoor nga jiitu màggal gi bésu màggal gi ak lu si topp moo tax waa Sénélec woo nañ leen pour ñu fexe ba courant bi egg ci bërëb yi nga xamante ne euh, Mbàkke Kajoor it day day day màgg. am na ay sañcaan yu bees ñu yóbbu fa courant bi ñu entretenir côté yi nga xamante ne dañoo yàqu mais également éclairage public bi ñu ànd ci ak waa commune bi taxaw ci bu baax a baax su ko defee dëkk bi mën a leer nañ sécurité bi gën a mën a yokk branchement yi amit ay abonnement yu bees bu ko amee ñu euh, jàpp ci baax a baax ci wàllu ndox waa service hydraulique bi nekkuñu fi waaye li comité d'organisation bi sàkku incha allah dinañ ko euh, jottali suñu ay kilifa ci kaw ci wàllu camion citerne mais également ci wàllu bâche à su ko defee ni mun leen jàppale ci wàllu boobu ci wàllu jokkalante bi mooy communication téléphonique aussi comité bi sàkku na pour réseau bi baax également euh, liaison yu baax loolu yi dinañ si dinañ ko yéex jottali ñi nga xamante ne ñoo yore wàll boobu euh, su ko defee euh, jokkoo bi ci bésu màggal gi mun a am solo parce que it mbooloo bu bëree souvent réseau bi am perturbation te bu régime perturbé léeg-léeg day am jafe-jafe pour nit mën a waxtaan kon daal ci tënk euh, comme waxtu bi xaw nañu xoj ñu jàpp ne daal sëñ bi service technique yi fi nekk ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci département bi ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci région bi ba ci même bu ko jëlee niveau national de taxaw nañu pour ànd ak euh, euh, comité bi ba nga xamante ne bés bi lépp lu mu laaj ci wàllu waajtaay incha allah dinañ ko def. loolu mooy engagement yi nga xamante ne moom la fii ñi ma àndal jël dinañ ko saytu ànd ci ak sunu ay kilifa préfet Kébémer ak gouverneur de la région bu Louga jàpp ne daal ah bés bi bés bu rëy la bés bu màgg la kon lépp loo xamante ne ci waajtaay yelloo na ko rek incha allah dinañ ci taxaw di ñaan it ngeen ñaanal ñu bu baax a baax ba yéene yooyu ñu am suñu borom def mu mu mu réaliser wu maanaam mu am parce que nit ki it yéeneem la am. dal fas yéene yéene daal jàpp bu baax a baax ci bés nga xamante ne dina nekk euh, màggal bu mucc ayib incha allah fii ci Mbacke. salaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Habibou Mbacke mm, di doom ci Serigne Cheikh Kadior ki nga xam ne mooy imaamu dëkk imaamu dëkk bi. jotaay bi ñun ñëpp teewoon nañ ko muy bi jotaay bi am solo boo xam ne li li ko tax a jug dara lu développement dëkk bi dafay baax dëkk bi saa su fekkee ne da nga am xew-xew dañ ko defee war a am comme ni ñu koy defee ci yeneen kër yëpp. su jotee ñu dajale ñi nga xam ne ñoo euh, euh, nekk chef service yi nekk ci euh, local bi ak département bi ak région bi wax leen li nga xam ne mooy suñuy doléance nga xam ne mënuñ koo ñàkk ñu wax leen ko pour ñu def li nga xam ne noonu lañ ci war a def dégg nañ ko suivre bu baax ay questions yu bëree bëri posé nañ ko fi yu bëree bëri yaakaar naa service yi jël nañ ci ay ay engagement li nga xam ne moom moo ci jiitu nga xam ne ñu ñëpp moom la ñu Eh, kenn mënu ko ñàkk ci xeexoo bu mën ci àddina muy ndox muy lu am solo ci xeexoo doomu aadama ci eh, ci yaram doomu aadama naan kenn mënu ko ñàkk eh, yaakaar naa comme ni préfet waxee hydraulique jël na engagement ne dina jox dina joxe ay bâche dina joxe ay fertarne kon loolu ñu doy loolu en cas ci wàllu électricité bi chef de service bi nga xam ne moo nekk Darou Mousty teewoon na li mu wax ne moom lépp lu fi jël ci engagement incha allah dina ko respecté li ñu wax nag mooy bëgg nañ station courant ci gox yi nga xam ne sanc yu bees la te ba tey courant bi eggu fa bëgg nañ tamit lamp yi mu gën cee góorgóorlu mu gën a leer poto yi nga xam ne dafa nekk dafa dafa maaxe ba funox tamit mu gën cee góorgóorlu defaraat lu ñëpp avant ñuy egg bi lamp yëpp ñu nekk yëpp ñu daal xoolaat defaraat ko ba mu euh, képp koo xam ne ñoo ngi nga xam ne dëkk bi dëkk bu leer na euh, lépp lu sécurité da nga xam ne euh, waa li ci wàllu expérience moom def nañ ci liñ ci war def lépp maanaam lépp lu gën a mat a jooj ci dëkk bi loolu moo loolu moo ci yàlla moo ci gën a yàlla muy wàllu insécurité parce que dëkk bi tabax nañ si benn santé muy boo xam ne bu mag a mag la def nañ ci lu nekk ci xaalis bu mag waaye depuis deux cent trois cent mi ngi pare mais kenn mënu ko intégré te kenn xamuñ lu tax te mi ngi fi ñu tëjee te suñu xaalis ñu askan wi ñëpp lañ ta dem def ko ci te kenn ba pare ñu tëj ko noonu dégg nga loolu loolu lu doy waar la loolu moo jur dëkk bi benn kenn ki suñuy yaay yi wala suñu papa yi wala wala ci waa dëkk bi ci population yi mënatoo yar ginaar sax mënatoo ko am li fi wala muy bëy wala muy nag lu ci ne guddi gu ne maam saay-saay yi dina ñëw euh, bu yàggul dara am na koo xam ne bi bi ñu ñëwee bi mu ko yëgee bi mu génnee saay-saay bi pat bala fetal la ko la fi am te lépp manque de sécurité moo moo ko waral loolu nag mooy point la boo xam ne bëggoon nañ ñu jaxawuñ ci bu baax a baax yëmu sax ci màggal bi parce que màggal bi day ay population ñoo di fi dëkk ndax dëkk bi boo demee ba nga ay junni junni ñu dëkk di fi yeewoo am marché am am hôpital nekk commune loolu lépp kon waxuma la dëkk bi waaye li aju ci ginnaawam rek dañoo soxla sécurité waaye gox bii ak Mbàkke Kajoor ak ko wër kenn mënatu fee ginaar sax mënatuñ ko fee yar loolu ma bëgg nañu jàpp nañ ci bu baax a baax a baax luñ mën a vérifier yoo xam ne am ci mën naa cee wàññi lu bëree bëree bëri yoo xam ne xam naa ko na at bii jàll may nañ si poto yu bëri 5 kilomètres yoo xam ne station la waaye li gën a mooy dañoo bay fi population bi dëkk nga xam ne fi lañ doon soxlaa benn poto lampe bu mu sa samp dem ba ci digg àll yi nga xam ne kenn samp ko fa ñu samp ko fa kenn soxlawu waaw loolu extension de 5 kilomètres bi ñu dëkk bi la dégg mu mel ne loolu dafa mel ne am benn ah boo xam ne bi nga am ci dëkk bi dañuy jël fekk lépp loo xam ne lu baax la dañuy jël benn côté ñu fittiloo ko fa mais fi nga xam ne fi population bi dëkk nga xam ne ñoo gën a ittewoo euh, kenn du leen fa yóbbu loolu luñ mat a euh, bàyyi xel gën mat a rectifier waaye fi ne li muy waxee boo génnoon fii ginnaaw bëri na potlaam yoo xam ne ñu ngi ci suuf tëdd fii yaa ngi tëdd ci ginnaaw tëdd ci suuf benn kii pot lamp yi yan yaa ngi daanu lan lanterne yi ñu ci monté woon daan daan faq na te kenn defaru loolu nag euh, mbir la moo xam ne ñu ngi ciy interpellé Senelec euh, di ko jaar ci mairie bi tamit ci mairie bi laa ci njëkk a interpellé mën cee góorgóorlu bu baax a baax ci loolu te xam ne population bi wax dëgg yàlla aju aju na ndimbal surtout ci côté boobu bëri na ñoo xam ne fañ dëkk seen kër ya dara mënu fa dara mënu fa mënuñ fa dëkk ndax amul lampe amul dara ndox tam noonu lañ manqué ndox ay tew teewteera yoo xam ne mille 2016 ñu ngi ko ñu ngi ko euh, attribué nit ñi ñu war koo dëkkee am na ñoo xam ne li tee ñu mën cee dëkkee maanaam ngir manqué ndox bu ñu tabaxee moo moo waral lool parce que euh, Aline Sitoé Diop dafa war a dem te demu fa waaw yooyu yëpp daal ay points yu manqué la yoo xam ne ñu euh, ñun ñëpp gisandoo nañ ko bii màggal gi ñu ko tàmbalee en 1981 82 parce que sëñ Abibou Mbacké mi nga xam ne moo nekkoon imam nga xam ne doomu sëriñ a yi ñu ak waa kër ko daanaka moo la jàngal boobu moo nekkoon xalifa rekk la te waajuram suñu mbàkk yoolu moom la sëñ Tuubaa seet woon fii ci dëkk bi moom seet fii dëkk bi léegi moom bi mu nekkee ci la ko waa dëkk bi dem ci moom laaj ko na ko dañoo bëggoon ah, comme suñu naw yi li li ñu dëkkal dañoo am bis boo xam ne dañ koy def ñu ko lebal ñu leen koy lebal te ñu tamit dañoo bëggoon bis boo xam ne bu ci fay ci ah, na ci Mbàkke Kajoor seet suñu Mbàkke lu gën a yàlla ci bis boobu sëñ Tuubaa ah, sëñ Aliou daan leen léegi bàyyi leen ma def ci listixaar su fekkee ne dëpp dëppoo na ak bis bi nga xam ne moom la fi sëñ bi ñëwoon ndax booba ñeent bu fekkee ne dañoo war séntu bu njëkk day dëppoo ak bis ba fekkee ne séntu la ñu wari du dëppoo ak bis ba na ci ndigal nga xam ne moom la sëñ bi ñëwoon par yàlla def mu xam naa lee ma xaw a yàgg digg la nag kër gi dañoo bindoon noo xam ne xëy na àddina moom mel ne taxul ñu am ci yitte waaye nag dafa dem toll foo xam ne wax li nga xam ne moo mooy sa wax li nga xam ne euh, laaj li nga xam ne mooy say say say euh, say àq ak say yëleef dara ak bëgg àddina waaye nag àddina mooy doxalin àddina boo nokkee il faut nga dox doxalin waa àddina loolu rek moo waral lii nga xam ne dawuñu ko des nga xam ne innovation yoo xam ne comité organisation bi ñoom ñoo ko créé loolu lépp ngir bëgg taxaw dëkk bi xam ne dëkk bi am na ay yitte yoo xam ne soxla nañ ko te ñëpp dañ cee war a taxaw comme ni ñu taxawee ci yeneen dëkk yëpp ñu taxaw leen di wàllu woowu